gannaaw ba candidat yi demee ca kee yi nappkat yi ñoom nee ñu tàmm nañu li ni mel ci politiciens yi. dañu sonn ci nax yi vraiment dañu sonn ci nax yi licence sax si lañ dëkk ñu ngi jënd licence ñun ñu ngi jënd licence ñu ngi fay licence ñu ngi jënd ñu ngi fay comprendre nga ñoo ñëw nag teg ñu seen ay plan yoo xam ne doo comprendre. doo comprendre ay machines yi dinañ ko wàññi machine tey la gën a seer essence bi tey la gën a seer géej gi amatul jën pour nga jàpp jën di nga daw ay kilomètres i kilomètres. sonn nañu trop des années passées nañ fii bon wax a wax bon bon permettre leen loolu loo xam ne après ñoom ñoom gisaatuñ ko quoi. ñii ñëw si keeti pêche di wax nii yëpp. li ñuy wax gëmuñu ko sax. nekkul boo xool ba ci biir nekkul sax lu dëggu ci ñoom. buñ toogee dañuy sans licence pêche mënul nekk. suñu sukkandikoo ci ne ñoo leen gën a muus. fii la ñuy liggéey ñu lii la ñu xam lii la ñu xam lii moo ñuy may bu dul lii duñu lekk est-ce que comprendre mais ñoom dañuy yëpp yëpp ñu weesul ngay ñëw di diggee loo xam ne yow mënoo ko même boo ko diggee même boo toogee yow doo ko def yow say mbokk avant say mbokk ngay jël teg leen yaa ngi dégg def lu la neex fooy suñu réew comprendre suñu réew mi ñuy fooyee la ñu war a bàyyi ñun gëmuñu kenn ku fi mun munti ñëw gëmuñu la waaw ku fi munti ñëw nag ñun gëmuñu la de ñëwoon la nga wax ba sa xol sedd nga dem sa yoon ñun gëmuñu la ca Soumbédioune nappkat yi ñoom nee nañu bàyyeetuñu xel léegi dig yi nga xamante ne candidat yi dañuy ñëw foofu di leen ko def ndax ñoom nee nañu dañoo sonn ci ay dig yi nga xamante ne du mus a antu